Baay Faal bu dëggal moo ma gënal sama jëm ji waaw sëñ Muntaxaa jëmm ji du sëñ Muntaxaa sëñ Muntaxaa li na ci moom dafa ëpp jëmm ji ndax mooy sëriñ Tuubaa sëñ Tuubaa nag képp kuy sëñ Tuubaa rekk doo moroomu malaaka kudut yonent bi alayhi salaatu wasalaam Sëñ Tuubaa la féete kaw te danañ ci ñëw ci biir waxtaan wi kudut yonent bi nag laa wax Sëñ Tuubaa la féete kaw danañ ci ñëw ci waxtaan wi ndax yonent bi moom moo gën ñépp may ñëw ci Sëñ Muntaxa Mbàkke ci teele laa toog ñépp di ma seetaan te di ma déglu dama toog fii hôtel Bawen bi fi Sëñ Isaaxa ñëwee ma jekkee-jekki aalu jël micro ne leen yéen a ngi may dégg ñu ne waaw man leen balaa yàgg dara sëñ Muntaxa dana toog xalifab sëñ Tuubaa foog naa ñi seetaan am na ci ñu fekke woon jataay ba xam naa ñu ne kii ab daanukat la rek ci télé laa toog di wax ma ne leen balaa yàgg dara sëñ Muntaxa dana toog xalifab sëñ Tuubaa jël micro ba joxe loola nag man la ak suñu boroom ma ma ko xamal ba tax ma wax ko yàggul dara motut ñaari weer sëñ Muntaxa toog xalifab sëñ Tuubaa di jënn jëmm joo xam ne nag ci ñun ni mu mel ci ñun sëñ Tuubaa rek lañ koy seereel ku ñuy wax Moussa Ngom di sama freer di taalibe sëriñ Basiiru sëñ Alaaji moom Cheikh Mouhamad Lamine Basir ñu naan ko sëñ Fàllu moom mooy wasilaam dama ne ko woon bu ngeen di dem Sénégal defar naa kaamil boo xam ne dama bëgg nga joxaaleel ma ko sëñ Muntaxa addiyee sëñ Tuubaa ngir booba rek maanaam yëgoon naa amoon naa yëg-yëgu ne sëñ Muntaxa dana doon sëñ Tuubaa ma bëgg sama kaamil jiitu ci moom mu nekk nit koo xam ne waxuma la sant gim sant Mbàkke waaye bu santoon nenee nit lum ñaan suñ borom suñ borom def ko ndax aw meloom sëñ Muntaxa jëmmi malaaka la yor laabir ga xol bu rafet ba sëñ Muntaxa caree ja fotoom boo gis rek ma ngay muuñ waaye nag dafa donn la ca baay ba ndax sëriñ Basiiru bi sëñ Musaa Ka di woy dana Seex Bàmba béglanam Basiiru kon sëñ Muntaxa bu ñëwee ci mbég rek lay wéy moom moom Mouhamadou taxa ci mbég rek day bég rek li waral nag tey di benn fanu safar ñu jàkkaarloog mbokk yi muy mbégte moo xam ne ci ñun ku ñu gis rek xam ne bég nañ foo ko àpp rek weesu na fa suñu bég ñun ni ñu bëggee foo ko àpp rek weesu na fa benn fanu safar ni muy commencé ñi nga xam ne dañoo ne ci biir suuf nekk barshaq dënan yëg ne tey la première safar ni ñu koy yëge mooy xéewal yi nga xamante ne ni moom la leen sama borom daan jox wala xéewal yi nekkoon seeni biir bàmmeel tey day gën a yokk ngir safaruk Sëñ gi ñoom dañ koy yëg waxumaa ñun ñu ci kaw suuf ñun suñuy ruu képp ku dëggal nekk murit di dund sëñ benn fanu safar la li nga yëg ci sa xol daawoo ko yëg ngir safaruk sëñ Tuubaa gi li waral loolu nag mooy daf ñoo indil sunuk àjjana ñun dañoo waroon a dem sawara sëñ jox ñu sunuk àjjana kon bu demee ba jox ñu sunuk àjjana moom toog ba yàlla libéral ko àjjana yépp jox ko ko mu jël àjjana yi jox ko jullit yi dem ba toog ne mbég mii bu ñëwatee maanaam bés bii bu ñëwatee nangeen ma ci sant la yàlla ndax mooy sama mbég kon bu ñëwee ñun dañoo war a bég tey dañoo bég lool tubaab yi dañoo ñëw Sénégal xeex ak buur yi fi nekkoon yu bari faagaagal leen analajoor ma nga ca deqale ñu daldi xëcc nag sëriñ si fi nekkoon moom la Cheikh Moussa Ka di wax naan doomi buur yi nekkoon ca Saalum ak siin gànnaar taxaw ne maalum dañoo ñëw fekk kilifa diine yi ñoddi leen jaay leen doole sëñ Moussa Ka nee na ñii ñu fetal ñii ñu jàpp dugal ci seeni gaal waaw dañoo fetal ñenn ñi rey leen ca senegaal ñenn ñi ñu dugal leen ci Sénégal dem sànki leen mooy ñooñu ngay gis muy esclave yi waaye nag ba sëriñ tuwaa ñëwee la loolu daq moo ñu daggal mbuumu njaam gi calale yi doon ne ci suñ tànk yi Ahmadu borom jaam ñee ko dagg muy Serigne Touba moo dagg calale yi nekkoon ci suñu tànk yi jéng yooyu Serigne Touba ko dagg dagg jëng yi nekkoon ci suñuy loxo tey ku mu neex tey jàkka yi fees dell jumaa yi fees dell fu neex waaye nodd waaye ku daan nodd sa biir néeg ngay dugg julli nodd sax amutoon ba ñu wootee birob ndar Ahmadu suñu yaakaar ja bokk na moo mujjee wuyu ji te moom lañ njëkk a convoqué moo mujjee wuyu ji ndax boobu amagul ndigalu borom bi subhaanahu wa da doon xaar ndigalal suñu borom tubaab bi leetar bi mujjee bind sëñ tubaa wax jam ca wax mi ngi ci jasaaw sàkkoor dafa tëkku sëñ tubaa ne ko leetar bii ma lay mujjee envoyé boo ñëwul diggante mbàkke ba daaru marnaan danaa ko toj moom la Cheikh Moussa Kanaan keroog la naan ko danaa toj mbàkke ba daaru mar jàpp mboolem murit yi ak dongo yi jébbal mbaaxaan mu ne ba njóogu njaay ñëwee xibaar ko Cheikh Bamba dana leen yàllaa ngi fi ak yónneen ba bu ceddo yi ñëwee ak sox du tàkk fas du daw fu nu xare ku mu fekk toog bul jóg taxaw dara du am ku fekk tëdd na lawal toyor sa ngëm te xam ne laaya ji yàlla wax ca saaru imraan gars yi badara jox nañ ko daaru mar naan waaw tubaab bi bi mu indee leetar bi sëriñ Touba dafa jël leetar bi teg tubaab bi yónnee koy leetar leetar bu ñëw rek sëñ tubaa teg tëkku bi mu mujjee tëkku mbokki sëriñ tubaa dañoo dajaloo ci ci ci sëñ tubaa di sotti xéewal ñoom ay mbokki boppam ndax boobu fépp fu tubaab bi maanaam jub jëm jëmale boppam ñooñu dootuñu am jàmm fépp fu tubaab bi jublu ñooñu dootuñu am jàmm mbokki sëñ tubaa nag dajaloo ndeysaan waa Mbàkke ak mbusoobe moom la Cheikh Moussa naan keroog la mbàkkeeg mbusoobe daje fa Cheikh Bamba di jooy ba woobe naa ko mbàkke nga wuy ji yërëmal njaboot ji baal ko mooy musiba am ci mbàkke mu ne Cheikh Bamba naa leen ndigalal sama borom laay déglu waaye yéen waxuma ak seeni moroom ci Ahmadu borom jaam ñi nañu ko yàlla fayal sëñ Tuubaa xaadimul xadim waaw suñu borom laay déglu waaye yéen waxuma ak seeni morom déedéet waaye nag laataa muy génn yónni rakkam ju baax ja muy boroom daarul muxti di maam Cerno Birahima ndaamal daaru muxti bàyyi Cheikh aw Balla Modou aw Balla Ousmane ak Aydara mbër ko ko jàjjuruur man borom daaru muxti daf maa jàjjuruur man ngir lan aw fitam ngir lan ngoram ngir lan boroom daaru dënk gi ko sëñ Tuubaa dénkoon taalibe yi mu nangu koo dénkoo sëñ bi dem ba ñëw te ndénkaan dara saawu ci moom maam Cerno Birahim Ndaamal Daaru Muxti keroog bi muy tàggatoog sëñ sëñtuwaa sëñ dana ko Cerno mu ne ko Mbàkke mun ne ko boo demee Ndar ana looy wax mu ne ko Mbàkke loo ma wax loo laay wax loo ma def loo laay def kookoy rakk ju moto yónni moom borom daarul muxti moo tax sëtam bu baax bi di leer ci sëriñ Ousmane Mbàkke nooré nii dama koy tudd lu baree bari samay waxtaan muy Cheikh Modou Kara Mbàkke ku gëm sëñ ku bëgg sëñ tuwaa ku wóolu sëñ tubaa moom Cheikh Ahmadou Kara Mbàkke Noreyni maam Cerno bi mu waxee ak sëñ tubaa loolu ba sëñ tubaa ne ko dëkkal ma ñaanal la ñaanal ko ne ko boo demee def naa law xeer def tubaab bi wu nen diggante xeer ak nen nag seen jàmmaarloo moom du mën a sori ndax lay tooy ca eh, ca ba rek lay jóge maam Cerno dem sëñ Moussa Ka nee na bi maam Cerno demee ndar ci wolofal bi mu ne noon ba yër leetar ba te naan leen garab bàngaas ma mooy tiitër ba danaa dëjji mbóot yi folet bàngaas yi sànni toor be sànni ca àll ba mu ne ku ñuy wax mam Abdouloo dem kalaame kook borom ndar ak ku ñuy wax Ibra Fatim Sarr mu dëkkee dër dër jurtoo ko lam de jurbe buurub ñooro mbaa seexu Abdul Xaadir Tijaani mbaa xarab Sàbba Saaja fil jiraani waaw tey bés bi bés bu ñu war a delloowaat njukkal la ndax ni ma ko waxee sànq ci commencement bi moo dagg mbuumus jaam ñi moo dagg calalay jëng yi sëriñ tubaa tekki yooyu yëpp ba tax ñu am jàmm bay dugg ci réewi tubaab yi di fi samp suñuy tele ñii di def Touba TV ñii di def leneen ak leneen jàmm jooju Ahmadu borom jaam ñi moo ñu ko may sëñ Touba a ñu ko may kon nag bësam bii nga xam ne nee na nañu leen ko ci santale yàlla suñu borom ndax képp koo xam ne mbégu sëñ Touba maanaam képp ku mbégu sëñ Touba di sa mbég rek foo toll fii ba fii ba 18 safar foo toll danga war di bëgg da war di bëggale kenn bu mu mere kenn ku meroog nit sax na ko ne jëbb loxo ne ko baal ma àq ngir safar gi kenn war ta mer barke Cheikhul Khadim kenn war ta mer safar gi waaw démb rek maa ngi toog ak sama benn mbokk Baye Fall ma ne ko safar gi kenn war ta mer mu tëb xàqataay sëñ boobu ñu ngi koy ziar bu baax waaw ñu tëb xàqataayandoo dañoo war di ree barke maam Cheikh Ibra <laughs> waaw bu leen mer murit nañuy ree di bég di bégale barke maam Cheikh nañuy bég di bégale di ree waaw di yëkkati suñuy xéewal maanaam di ko def di ko jox jaam ñi ba keroog màggal gi barke Cheikhul Khadim ñu naan ay corona ñun koro koro corona corona bu ñu teree dem tuubaa ñun moom ñu ngi fii waaw waaye yéen ñi nekk senegal corona bu mu leen teree dem Touba waaw na ko na ko na ko na ko na ko Sidi Maba waxante woon ak duma Mbaye na ko dañuy dem Touba folli la tey tekki sa ndombak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk waaw waaw dañuy dem Touba la ko wax folli la tey tekki sa ndombak tànk moo gën a yomb lii nga wax nun noo lànk waaw mooy mooy mooy mooy euh, Cheikh Modou Ndiaye Mabey Serigne Aliou Diouf Lambaye Cheikh Babacar Thiargane waaw Cheikh Babacar Thiargane boroom làmbaay waaw ñoom la tubaab bi ñëwoon jël paaka bu duggee takkal ko deret génn woo kenn waaw mu ne Cheikh Babacar Thiargane Serigne moor Maane Mbaye Serigne Aliou Diouf Lambaye keroog ñi lee ko daane keroog la leen wóolu ci péncum làmbaay naan leen dinaa leen tàggaleeki laxasaay waaw mu ne kenn kenn jaa far ba jaa ngay darmbal di fecc ay gobar di feeñal damu di boole dóor ak yow amul far jàmm te naan baleen Sëñ Tuubaa mbaama ren murit yépp ma nga naan ba màndi murit ya naa ko tuubi ruu bi bamba nas na yi yow ma xëlëstu te faral tey noon bi bamba nas ruu yi ca yow ma xëlëstu ne ko faral tey noon bi mu ne sëriñ ma maa ne ko tontu booba ne ko dangay kàcc dañuy dem tuubaa folli la tey tekki sa ndomb tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk mun a daje mën a tis penc ma dal di jaxasoo murit ya xaaju mbër ma dal di laxasoo murit ñëw Tuubaa xibaar ko Bàmba mu xëy ne ñaanal leen ko tas naa jal waaw moo tax fan yële ci gannaaw dégg nañ ku fi génn toog waaw naan duma dem Tuubaa jarut sax murit yi di ci commentaire bu mu dem Tuubaa bu mu dem Tuubaa loolu yëg-yëgam la bu mu dem Tuubaa jarut ñu ci commentaire dañoo war a xoolal way deng sëñ Tuubaa li mu yor maanaam du moom moo soxla nit ñi nit ñee ko soxla sëñ Tuubaa fi mu toll nii ndax jaamu na suñ borom la mu war a jaamu suñ borom kon nit ñi ñoom ñoo soxla sëñ Tuubaa liggéey gi nit kii liggéeyal sëñ Tuubaa liggéeyalu ko sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa liggéeyal na suñ borom ba pare lépp lu waaye di liggéey sa bopp nga koy def damay faral di wax naan kenn deful kenn dara kenn deful kenn dara kon lu waaye def sa bopp te yoonu si yoonu si waaye yi moo gaal la yàlla yem am mel dama koy wax koy wax lu bari na leen loo fa loo fa deful doo fa fekk waaye nag waaye jëful ngir yàlla ak rasul doo ci am ab yool te jëf ci dana suulu bu demul tuubaa bu dem tuubaa na toog <coughs> waaw loolu jarut ñu ciy commentaire <coughs> jarut ñu ci commentaire waaw ah, waaw jarut ñu ciy commentaire de barki Cheikh murit yi danañ dem tuubaa te ren la màggal gi gën a xumb ren la màggal gi gën a neex waaw murit yi seen alal du ko fekke ndax kat Sëñ Tuubaa dana woon tey june it gàcceel na démbam màggalug daaw gi màggalu ren gee koy mën barki Serafal màggalug daaw gi màggalu ren gee koy mën waaw ñun suñ digganteeg Sëñ Tuubaa xamuñu ci jamono ju neex wala jamono ju naqari jëf rek lañ ci xam suñ digganteeg Sëñ Tuubaa jëf dong lañ ci xam ñu nekk Sénégal na ñëpp mobiliser wu ànd oto yi jiitle laay xaadimul Moustapha sëriñub Cerno Birahim sëriñub Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babul Mouridina sëriñ Touba ñooñu mu jiite rek mënoon nañoo yor Sénégal te te te te loolu booy naan coow du jib ñooñu rek mënoon nañoo jiite Sénégal te coow du jib xam nga démb rek maa ngi waxtaan ak benn mbokk taalibe ma ma ne ko sëñ Touba tënee ko fi jëlee woon te ay soldaar ñoo ko fi jële woon waaye tey teni boobu ko fi jële woon tey teni boobu ñooy mujj di jàpp ci liggéeyam kenn du sëñ Tuubaa soldaar yi ko fi jële woon ñooy bàyyeekoo ndakaaru rang ndakaaru ba Thiès cees ba xombal xombal ba bàmbay bàmbay ba njaareem sol seeni teni duñu toog duñu duñu nelaw yor seen arme taxaw nii fanaanee escorté yoonu sëñtuwaay ba biir Touba te ñoo ko fi jële woon waaw te loolu nag moo ko waxoon am mag mu mu doon waxanteel am dëkk bu mu demoon dal di koy joxoñ ne ko la xew fii dana xew fa tuubaa waaye day fekk ngeen làqu su boobaa ne ko tubaab yi dana taxawu mbooleem sama yoon danan dem ba raw samay murit keroog ñoo buur ya wax Cheikh amul Lo ma dëkk ndar ne ko yaay sama seere yaag Serigne Mbacke Badar ne ko yéen laa bëggoon ngeen nekk foofay jàngale waaye gannaaw gi nag damay tabax jumaa ba àggale mu ne keroog la Cheikh bàmba daroo curu cara jublu penkuy jàng saaru Bakara ba mu yeggalee la teg ca saaru Imraani ba mu yeggalee la wóolu Sidi Gaawaan damay dégg ñuy jël sëñtuwaa di ko taqale ak ay sëriñ sëñ tubaa du sëriñ dafa tax arxuraan daganal sëriñ moom sëñ tubaa dafa tax arxuraan daganal sëriñ sëñ bu tàbbi wutoon ci sëriñ arxuraan du daganal sëriñ am na benn woykat bu ñuy wax Ibrahima Jaañ nee na sëriñ Bàmba tax arxuraan daganal sëriñ waaw da cee tàbbi moo tax arxuraan daganal sëriñ ndax ki nga xam ne ay yonent laa lay wax de ay yonent gannaaw rasuulillaahi ku fi ñëw sëñ Tuubaa féete kaw ndax yen bii ñu ko teg yenn bii ñu ko teg nii suñ borom da koo teg ku ñëw yëkkati doo ko àttan waxumaa yëkkati nag teg ko ci sa kaw ku ñëw rek yëkkati yen bi doo ko àttan ay yonent sax yen nañ leen ko àttanuñ ko sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dana cas yen bi moom la sëñ Moussa Kanaan yen ba ñu yenoon xutbu ya ak labdaare te àttanuñ ko bamba moo ko faf raw gaaya dëngeñ di wéy te tawatul balaaya sóoratul axwaani la am ci aaya sëriñ sépp naaxis la ñu bàmbaay kaabal mbër yépp suq lañu ñu bàmbaay kaabal waaw yen boobu dañ ko yen xutbu yi ak labdaar yi attanuñ ko duñ ko àttan sëñ Tuubaa nag da koo teg ci digg boppam dangamtalu nii wàcc ay loxoom di wéy ak moom yen bi waaw dafa yenu yen bi ba pare dangamtalu nag di wéy ak bi moom sëriñ Tuubaa di wéy ak yen bi boo déggee sëñ musaaka Ka wala falam yi boo koy jàng lu bari boo demee ci sëñ tubaa xaadimum ban ba lay bind xaadimum ban ba du Bàmba de ban ba ban ba lay bind ban ba ban boobu noonu moom lañu ñu suñu maam aadama ba ñun ñii ñu bàyyeekoo ci nekk doomu aadama ba dégg sëñ Tuubaa naan jaamu naa suñu borom ñetti junne at laataa ñuy bind aadama ak awa mu njëkk ma xaadimum ban ba la tudd ban ba gannaaw gi nag la fi ñëw ndax boo demee ci jasaw sàkkoor li may wax yépp damay tey jasaaw sàkkoor laay indi duma indi leneen waaw boo demee ci jasaw sàkkoor ay yonent la ci sëñ Tubaa di waxal ne moo jël ay yëfam jox leen ñu ñëw loolu jamono ngeen dégg ma de ay yonent laa lay wax ay yonent waxuma ay xutbul xaws waxuma ay wàlliwu waxuma kenn ay yónnent laa la wax ñi yàlla yónni la sëñ tubaa jël ay mbiram jox leen ñu ñëwee loolu jamono laaj ma mooy lan mooy ndedaaliyel gayndeem nga moo rey noonam ya yonti yàlla musaa labal firo aw na xotti yoon ya yonti yàlla Nooxa labal mbànjame rey noonam ya Cheikh Bamba ne moo leen joxoon mbootam ya ku ko mën a dindi ay mbóotam la jël jox ay yonent ñu ñëwee jamono moom sëñ Touba ay yonent tubaab bi ko fi jële woon yóbbu ko wiir wiir maa yombeloo ko jële ne da ko yóbbu wiir wiir dal di signé contrant ne leen Ahmadou mii bu demee wiir wiir bu dellusee man ma fetal sama bopp daldi daw ak sëñ Touba ci bato bi ànd ak Sàmba Lawbe Njaay bi ñu demee ba yegg wiir wiir rab wa doon lekk wàlliwu yi xëq dëddër la tudd ponkal bu taxawee ci tuñum suuf mi du laal tuñum kaw mi wala du laal tuñum suuf mi kuñ fa mos yóbbu maanaam faagaagal nan la ay yaxi kese fa ne wennaw doj kese fa ne mu wàcc sëñ Tuubaa ak Sàmba Lawbe teg leen ci xeer wi sëñ bi toog nii Sàmba toog ci gannaawam mu won leen gannaaw taalaat batoom jiitu leen wallaahi cey daam cey suñu yaakaar ja moo gore sëñ tubaay gor sëñ tubaa gore moo ne day bu ko neexoon du génn senegal waaye da leen koo yéwénal ñu def la ñuy def def seen lépp mënuñu ci Ahmadu dara bañ leen tegee ca doj ba sëñ tubaa ak Sàmba Lawbe sëñ Musaa Ka nee na keroog la Sàmba di werweri ñu déggut olof xam nañ lan mooy werweri mooy nii rek di werweri ndax tiit mu ne sëriñ bay safab weer sëriñ ba na teg di safab weer sëñtuwaa Tuubaa daa toog ba mu yàgg ne ko Sàmba Lawbe na nga gëm sama xar baax yii moo mën xërëmi tubaab yii wala moo mën xërëmi jinne yii dañ lay jommal sëñ Moussa Ka nee na ne tuuti sëñ ne ko Sàmba xoolal xarbaax a mën xërëm nga la Sàmba bul ma feeñal <laughs> cey daam yaakaari jaam ñi ah ne ko Sàmba Lawbe gëmmal xar baax a mën xërëm dañu lay jommal nes tuuti mun naa ko sàmba xoolal xar baax a mën xërëm nga ma feeñal loola sàmba bi du ko wax mukk jinne ya dañoo mujj ñëw ci sëñ Tuubaa jébbulu sëñ seexal leen ba jinne yay seexu loolu xanaa sëñ Tuubaa rek am yor ay jinne yu dooni seex jajja yaroog nabba yaroog dongom ya kàkku nàkkoog këli ràkkoog morom ya ak kuru nàkkir nuuru tamsiir waaw ay jinne lan sëñ Tuubaa seexal leen ñu toog di seexu waaw loolu Ahmadu rek a ko am tubaab yi ba ñu jéemee jéem ci sëñ Tuubaa ndax boo xoolee Samori ture ak ku ñuy wax Birahim Cissé ñoom ñépp seen bàmmeel yaa ngi ca maayom ba ñu tëdd Samori Touré ku ko gënoon a jege yàlla jàngkatub arxuraan foo ko fekk kaamilu arxuraan a ngi ci loxoom keroog bi ñu ko yóbboo Maayombe ba lenge bi na cas Samori Touré dal di koy dugal ci fuur bi Samori ture bi tubaab bi tijjee dañ ko fekk mu toog yore kaamilub arxuraanam di jàng moom Samori Touré mooy bàyyi Seexu Touré bu Guinée Samori tubaab yi jaaxle ci loolu labbe yi ni sëriñ si amee xam-xam am na labbe yoo xam ne yàlla dalee na a dénk xam-xam dañoo dañoo xam lu bari dañuy xool nit rek na jàkk xam sa biir ñu def seeni xërëm xool Samori ba mu yàgg nag ne chef bi kii seen téere yooyu ñuy wax Qur'an mooy wëri yaramam wi bu ngeen ko doon lakk fii ba cent du lakku tubaab yi ne ko nu ñuy def mu ne leen téere yooyu ñemewul sobe da ngeen di jël am mbandum mbànd ngeen tuur ci ndox bu ngeen ci tuuree ndox bu ngeen paree bu ngeen ku ko xëppee alxuraan ji daw ñu dal di jël mbànd tuur ci ndox ñoom soldaar yépp tuur ci ndox bi ñu ci tuuree ndox ba pare maanaam jël jël jël mbànd moomu dal di koy xëpp Samori Touré keroog bi ko leng bi ne cas moom Samori Touré ba dugal ko ci fuur bi dañ koo lakk ba mu doon dóom akasa akasa jërëjëf ñu ngi koy nuyu bu baax ndeysaan suñu rakk suñu xarit ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Samori Touré keroog bi ko lenge bi ne cas biñ ko sottee sobe boobu ba tuur ko ko arxuraan ji dafa daw lenge bi na ko cas dugal ci biir ñu lakk ko mu lakk ba doon doom sëñ Tuubaa tey la lakkarti kaalaam laxas ko ci jullee ko ñu ne léegi nag nañu waajal sëriñ bi Ahmadou tubaab yi dem di taxani fuur bi matt lañ ko daan xàmme matt am soxna soo xam ne sama yombe da daan dajeeg tubaab yi ñuy taxan mu daw dab leen ndax bu njëkk foo gisee nit ku weex rek maanaam euh, dafa dafa raaroon mu daw dab leen ne leen lu ngeen di def fii am kuy interprète koo xam ne moom moo koy tekkil ne ko ñiikat nee na dañ fee indi benn sëriñ boo xam ne du la tudd nekk ca Sénégal dañ fee tabax benn fuur boo xam ne fa lañ ko war a lakke mu ne leen kon dey heure bu ma xëyatee dinaa leen indil ñetti sayu mat may leen ko soxna si def noonu bët bu set heure bu xëyee rek indi ñetti sayu matam ñuy xamb fuur bi di xamb fuur bi ba dayoo bañ ko bëggee chef bi ne leen fuur bi day nee nan ma tàng na ndax picc bu naawee ba tiim ko walla lépp luy naaw njanaaw yi lu naaw ba tiim ko rek tàngoor bi da koy jàpp ba mu tàbbi ci biir waaye mënagumaa xam dayob tàngaay woowu faaw ma jël ci sama soldaar yi kenn esin ko ci fuur bi am benn soldaar bu jóg ne ko déedéet ñun dañ fay ñëw ngir liggéeyal la boo bëggee ese am na soxna soo xam ne mooy indi matt mi soxna soosu bu ñëwee nañ ko ci essai soxna soosu la njëkk a sa pour ba sëñ Tuubaa jël ko laxas ko ci kaalaam jullee ko jéggal ko ne ko kuy dem àjjanaa ngi nii cey Ahmadu moo tax ba muy wax irham jëmi alwara yaaxaa deen radda kenn du moom ñu jël sëriñ bi bañ demee ba xam ne dayo biñ bëgg am nañ ko leng bi dana ca sëñ dugal ci biir fuur bi ñu toog ñetti fan ibbi fuur bi fekk sëñ Tuubaa yor kaamilub alxuraan di jàng fuur ba mel ni galaas moo tax mbàkke mbàkke yi koo ci nuyu rek loxo bi day sedd <laughs> loxo ba day sedd guy waaw fuur ba mel ni galaas léegi nag ñoom ñu jaaxle nag ne léegi fi ñu jaaroon Samori Touré lañ bëgg a jaar seexul xaddim yaakaari jaam ñi du dem de du dem ndax sëñ tuwaa mënoo koo jaar fenn ndax amul bunt sëñ Tuubaa amul bunt xam nga bu dee français dafa am ligne vertical am ligne horizontale am double ligne sëñ Tuubaa double ligne la amul bunt waaw léegi nag tubaab bi jaaxle nee nañ dugal nañ Ahmadu ci biir fuur bi lakk nañ ba sonn mënuñoo Ahmadu jaaxal leen léegi nag ni ñuy def mooy làbbe yi ñu kalaame woon ak Samori Touré la ñuy dem kalaameeg sëñ Tuubaa dem ci làbbe yi ne leen Ahmadou dugal nañ ko waaye ni Samori defoon la def labbay ne leen def leen daan ko ñu nit ñu def suñuy xërëm dugg def seeni xërëm def seeni xërëm gisuñu lenn loo xam ne mën nañ faa jaar Ahmadou ñu ne kii mënuluñ ko dara léegi ni ñuy def mooy dañuy jéem a jokkook labbay tugal ya buñ jokkook labbe yooyu labbe yooyu mooy labbe yu ñu gën a mag ñu jokkook labbe yooyu labbe yooyu xam nga lan lan wax tubaab yi sëñ Moussa waxi sëñ Moussa Ka laa leen di wax de labbay tugal ya naa lee kooko sëriñ bu mag la du nuroowul ak sëriñ si ngeen daan sànq mbooleem rijjaali sëriñ Bamba ci gën dim pànk <laughs> waaw waaw looloo ci doy waar fi ñu jaar saa Mori Touré lañ a jaar sëñ Touba mënuñu ko faa jaar ñu woo seen labbe yi labbe yi def seeni xërëm mënuñoo gis mbirum Serigne Touba ñu boole kook seen yeneen ni labbe labbe yooyu ñoo yëkkati seen loxo wax tubaab yi ne leen Serigne bii nuroowul ak sëriñ si ngeen daan sànq mbooleem rijjaal yi Ahmadou Bamba ci gën dim pànk sëñ Moussa Ka ne ñu teeral suñu gaal ca waax ba Cheikh Bamba togguloo fa sàmbalaw ba laax ba keroog ba mu sottalee la jël windi marinaaw moo gën a gaaw ci gaal yépp mel na ni njanaaw waaw ma kenn du sëñ Touba. kenn du sëñ Touba kenn du sëñ Touba damay wax naan murit yu bari war nañoo xàmmee lii màggali sëñ Touba yi màggal gi ñuy wax màggalug Serigne Modou Moustapha muy jàmbaar ju baax ja taaw bi nga xam ne taaw yépp dañoo war a roy ci moom muy Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacke bi Seexul Xaddim làqoo njaareem cig jàmbaaram ci pas-pasam ci pësséefam la ko yóbbu tuuba mooy màggalug sëñ Modou Moustapha gi màggalug Daaru Salaam gi mooy bi sëriñ Touba demee ci géej gi ba ñibbisi te suñu yaakaar ja muy Sidi Ibrahim Fall di maam Cheikh Ibrahima Fall làmp Baabul Muridiin na ko waqit boot daaw ak moom dukkat waaw fii pale bi nekk Kër Beles Jaañ waaw daaw ak moom dukkat ci la sëñ Tuubaa toog nag ne wallaahu yaddahu ila daaru salaam ne daaru salaam dëkkub maam Cheikh Anta Mbàkke ba borom daaru salaam ak gaawaan kooku damay wax ne day champion sëñ Moussa nee na ko yaay champion ci yoonu Cheikh bàmba moom maam Cheikh Anta ñaanal bu baax suñ sang bii fi bàyyeekoo suñu borom yokki leeram te taaf ñu ci barkeem di xalifab daaru salaam yaay champion ci yoonu Cheikh Bamba lu nekk yaa ko njëkk am fi soodaani yaa ñuy mosal di ñu musal ci ay daan dem na bay waxit naan soxna antanjaay wàcc na am yaaram am ilimaan gàlliwuloo ci maaram ilimaan ji mooy sëriñ Afee Mbàkke bàyyi sëriñ Saaliw Afee di maam ci sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Afee ñu ngi koy nuyu bu baax a baax boobu mooy ñaareel bi màggal màggalu daaru xuddoos gi am màggalu daaru salaam gi waaw màggal gi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Fadal Mbàkke moo ko wootee Touba ba tax ñëpp di fa dem borom ràgg dem na ràmm dem na kollu dadd jiba mut dara sëpp kiloot mot man galas Touba ak njaareem <laughs> sëñ Fàllu boobu xiif bari woon mag ñi ñëw ci moom ne ko Mbàkke de xiif gi daa bari lool sëñ Fàll ne waaw waaw ràgg dem na de ràmm dem na kollu dadd jiba mut dara sëpp kiloot mot man galas Touba ak njaareem moo tax sama classe gi yenn saa yi ñu sol dara june sëpp waaw mu wàcc ba ci suuf lépp sëñ Fàlloo màggal googu daaru salaam mooy ñaareel bi màggal gi mooy bi sëñ tubaa demee ci géej gi ba ñibbisi waaye màggal gi nga xam ne mooy 18 safar laa bëgg a wax murit yi mooy gan màggal xam nga ñun wolof dañ naan mbër muy dem ca làmb jay bàkku jóge ca làmb jay bàkkoo ko gën sëñ tubaa ba muy dem la bàkku màggal gii ba muy dem la may wax murit yi màggaluk sëñ tubaa gii li ci yàlla def ci màggal gi kese la ko def maanaam boo amee yoolub màggal bu la neexee yow mbaa yàlla nan la demal toog xam nga lan mooy baatu mbaa yàlla muy loo def rek mu neex suñ borom man de ca laa taab bi man awaw ah man Serif Baye Fall barke maam Cheikh Ibra waaw ndax sëñ Moussa Ka nee na képp ku màggali bisub tukkeem ba jihaar nga aj nga umra am nga yool ba waaw loolu li ci yàlla wax yépp nga dajale ko boole ko jihaar aj umra ne am nga yool ba nga màggal ba am yoolub màggal jihaar nga aj nga umra am nga yool ba loolu ci màggal gi rek la am ci màggal gi rekk la am ndax nag suñ boroom nag ay mbiram day sot yàlla day sot yàlla day gënale yàlla day xeetale jël na Seydina Muhammad def ko muy gën gi mbindéef jël suñu maam Ibrahima def ko muy am xaritam xaritam lu tax ma tax mënta gën ci dëkk yépp kon suñu borom borom day sot day borom borom moomee na moo sotle Ahmadu defal ko defal ko juróom-ñaari sorol ca Touba jumaayu njaaram jumaayu masaalikul jinaan ndakaaru gee nga xam ne fa lañ ko boole woon nag wa mu sonn fa coono boo xamante ne nii coono boobu mu sonn ndakaaru moom moom moom moom fi sëñ Moussa Kanaan boo xalamee yaari guddi ndakaaru ba dégg la mbër ma wax nga dal di waaru mu ne isa zakartu zalikal mabita wa zalikal amina war saboota waaw ndakaaru lañ ko boolee kaw nag nag nag woo xam ne nag wi ind nag yooyu nga gis ind maanaam ind yi def xërëm nag wi maanaam ku sol lu weex rek lay bañ a gis foofa ca wetu poor ba lañ ko boole woon ak moom ca ndakaaru génne sëñ tubaa génne nag wi nag wane bërxa ñit dañoo jekkee-jekki kenn xamul tell ji daal la nit ñi dégg tell ji nit ñi seetaan si woon xamuñu lan moo daaneel nag wi nit ñi seetaan si woon xamuñu lan moo faagaagal nag wi nga dégg sañ musaa Kanaan keroog lañ ko yóbbu ci mennam mbedd boole kook yëkkuwun yafal wuy fàdde keroog mbedd ma noonee dañ koo karante nii lañ ko def dañ koo karante keroog mbedd ma noonu dañ koo karante waaye bisub keroog ruugala buur yàlla gaarante ne ba mu fëkkee ba jub fa ca moom wutewul ak borom mi laaf amuli buum foofu nërmeelu xooj gën a fëllëg fa kanamu jibrilu ku weddi li yëral jasaawu sàkkoor konte nga xam ne googu góor a mat góor sëñ Bàmba bu doon wàlli wuy fayantoo kon mu alak nasaraani ba xërëm ya gàntoo ndedaaliyeel gayndeem ga moo rey noonam ya Musaa labal firo aw na xotti yoon ya nuhun labal mbànjam rey noonam ya Cheikh Bàmba moo leen joxoon mbootam ya nag wa noonu la mujje aw nag lañ ko booleel nag wa mujje noona te loolu fii la xewe ci ndakaaru suñ boroom faye ko fa jumaay joo xam ne boo doon wër ci àdduna ba àdduna daj xanaa màkka waaye boo jógee màkk di wër àdduna ba àdduna daj jumaay ju mel ni masaalikul jinaan doo ko gis doo ko gis fenn te ci xolub ndakaaru nag la nekk ci xolub ndakaaru waaw niñ koy waxee ci nasaraan maanaam xawma nan de Riboris xawma place de Riboris xawma ci wetam foofu la jumaa jane te foofu mooy xolu ndakaaru côté Medina waaw moo tax murit yi ñu war a delloo njukkal Ablaye Wade lan taalibe dëgg la doonatut président ma nga toog moo tax ñu mën a sañ a wax lii waaye moom jaanam wàcc na moom ndax pàkk boobu moo ko yëkkati woon joxe ko àddee sëñ bañ mën faa def jumaay ju tol ne defal ko sëñ kon nag yal na ñu ko yàlla fayal xam naa ñuy waaj a wàcce kàddu yi rek di tëje foofu muy fi ñuy tëje mooy bi sëñ bi àndeek nasaraan yi ba dem ba xam ne ñii mënalatuñ ko dara sëñ Moussa Ka nee na sëñ Tuubaa da leen a jox aw woy di leen léebu <laughs> Cheikh Moussa Ka nee na keroog la Bàmba di léebuy nasaraan kenn làqutoowu ko ci buur buuri soodaan ne leen ku këf jigéen ne meng ay at te mënaloo ko dara dara ci ay wet nga jël ko delloosi ko ci kër ay bokkam ndax génn guddi dana tax nga am ca ndam ñu ne ko déedéet mu ne mën ëx ma du noona laa mel ni tubaab yi ànd naa ak juróom-ñaari at ak lu topp mënalu leen ma dara maa mën ñëpp ne ne ko kàngam yëpp danañ mujj dellusi jébbalu ak doomi buur yi nasaraan ya noppalu nasaraan yi noppalu nan bu baax kàngam yépp jébbalu nan ak doomi buur yi doomi buur ya nag fa ñu jébbaloo mooy ki ñuy wax mbaaxaan Cheikh Ibra la ko sëñtuwaa Tuubaa booleel Cheikh Ibra Fall moom moom yoon yoon wa waaw sëñ Musaa Ka nee na ndar la ko fekk dal di jooy ba xaacu tuumal ko raamal ko marwa di rëccu mu ne keroog la naan ko mbaaxaan ba ci nun merooxee fa njurbel ku ma merool danan maroo dégg nga sëñ Tuubaa de ku ma merool danan maroo nee na mbaaxaan ne ko maag yow du ñu maroo ci dunya nee na Cheikh Bamba du mooyu ko muuñ ngir fen ya <laughs> waaw da ko du mooyu muuñ ngir fen ya waaw ndax xam na ne mbaaxaan la muy wax ay nari kese la la sëñ Tuubaa wax rek ay dëgg sëñ Tuubaa yàllaa koy waxloo moom la sëñ Moussa Kanaan ba muy nuyoog borom ndar la ko sama borom la ko boromam dal di wax la muy nar kon xam nga kon sëñ Tuubaa yàllaa koy waxloo mbaaxaat moomu ci Cheikh Ibra la mujj jébbalu Cheikh Ibra tarbiya ko jël ay doomam ku ñuy wax Abdoulaye Xaar Jóob di ko xaarloo ci bunt ku lekk taalibeb Cheikh Ibra bu lekkee laaxu daqaar ba ba ba laax bi des ñu jox ko Abdoulaye Xaar Diop moom mi nekkoon buur da kenn ku nekk xam na dunduk buur dem bay jël laaxu daqaar bu des laaxu dongo moo tax Cheikh Moussa kanaan ko yaa tax ba Abdoulaye Xaar taxaw ci buntu di fa xaar woyof lu bay lekk daqaar waaw loolu jëmmi Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Mouridina kon nag mbokk yi ñu fas yéene tëje rek ci ñaari Baay Faal di Cheikhuna Cheikh du Fallilou Fall jàmbaar ja ak jàmbaram yi nga xam ne ñoom la fi bàyyi ñu bëgg a def foofu ay leeral rek moom sëriñ Modou Aminta ndax wax nañ ci commencement bi ci sëñ Muntaxa waaye dañuy wax ci sëñ Modou ndax mooy suñu bunt taalibeb Cheikh Modou Fallilou Fall foo ko gis danga koy xam xàmmee ko yar ga teggin nga dal ga taalibe ga sëñ Modou dafa ñëw créer ñaari baay Fall moom sëñ Modou Aminta dafa ñëw créer ñaari Baay Faal ñu ne ñaari Baay Faal tudde fi mu ne ñaari Baay Faal ba booy dem Mbàkke sax boo ne ñaari Baay Faal buntu kër sëñ Modou Aminta lañ lay wàcce waaye ñaari Baay Faal yi sëñ Modou Aminta yooyu tur wa moo fa newoon waaye ñaari Baay Faal mi ngi door a am ñaari Baay Faal mi ngi door a am fi mu toll nii gannaaw bi fi sëñ Modou Aminta bàyyeekoo la ñaari Baay Faal door a am ndax benn Baay Faal rekk amoon muy Cheikh Modou Fallilou Fall waaye gannaaw bi mu fi bàyyeekoo nag la turu ñaari Baay Faal yi mu doon wax dal di feeñ barke ba ñëw muy kan kan sëriñ Fallilu Fall taawam bu baax ba ak sëriñ Moustapha Mbar rakki sëriñ Fallilu Fall mi nga xam ne da ko déggal lool ñaar ñoo ñu ñooy ñaari Baay Faal sëñ Cheikh Jëmb jooyul dara sëñ Cheikh Jëmb xalaatul dara ndax ñaari taawam yi sëriñ Fallilu Fall ak sëriñ Moustapha Mbar ñii ñooy ñaari Baye Fall yi nga xam ne ñoom la sëñ moo Aminta Fall boroom ñaari Baye Fall doon wax ñaari Baye Fall tur la woon rek waaye ñaari Baye Fall mi ngi door a ñëw muy Serigne Fallilou Fall ak sëriñ Moustapha Mbar di leen ñaanal sama borom ñu yàgg fi lool yàlla nañ fi yàgg lool ak rakk yi mboolem rakku Cheikh Modou rakk Serigne Fallilou Fall yi li ko dale ci Serigne Moustapha Mbar ba ka ca gën a néewi at. yal na la fi sama borom yàggal lool te ngeen yàgg te ànd ak ak wér kon nag mbokk yi foofu lañ doon tëje kàddu yi xanaa di leen wax ne rek ci kanam euh, xam naa suñu technicien bi dana leen dugalal waxtaanu ki nga xam ne moo fi Serigne Touba. di sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamad Lamine Basir wax ju am solo ji mu wax kon bu ko defee rek mbokk yi foofu la ñuy tàggatoog yéen xam naa di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu di leen wax ne kàddu yi ah, kàddu yu murit la rek ah, yu am mbégte tey di première safar ñu fas yéene woon a jàkkaarlook mbokki taalibe yi rek ngir bëggal leen ci sëriñ bi di wax ne nag mbégte moom ñaare xëy na mën naa ëpp sax ba àll jàpp ma waaye nag danañ ko waajaat di ànd ak yéen ci safar gi ba keroog fukki fan ak juróom ñett yi di 18 safar nga xam ne mooy bésub màggal ga nga xam ne ku màggal màgg na ko sëñ Moussa ko doon naan bu leen di jël xéewal yi Bàmba indi yóbbu seeni kër fàtte Tuuba ak Ndindi kon ñi nga xam ne ñoo yore xéewal maanaam yàlla dénk leen ko nañ ko def ci màggal gi te bañ koo def ci seeni kër di fàtte Tuuba Ndindi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu عند جاولي إبليس إذ ناديته بيا ولي نفى لغير الله قبل فندري بأهل بدن الأسود كدري السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته